macha allah jërëjëf jërëjëf Mahfouz Khoule

Mama Amarita. Seexu Amadu samaama feeti wal Fuuta Seexu Amadu loxo jàppal samaama feeti wal Fuuta Seexu Amadu loxo jàppal samaama feeti wal Fuuta Seexu Amadu binaayi satal ji an jàkkaarloo noonu diine yi aywaay mu tal ji an jàkkaarloo noonu diine yi seen maam mu rey ji bañ jël dina ko dugal ci diine ji لا amari koy saya soxna abu sar amari koy soxna abu sar saya mama amari koy saya soxna abu saya amari koy saya soxna abu saya mama amari koy saya soxna abu saya loxo de mama amari koy saya soxna abu saya loxo de mama amari koy saya soxna abu saya loxo de mama Amarina sama nu kamal kamal baay boobu mooy sa baay sax mu jaral loxo baay boobu mooy sa baay soppey maam Muhammad baay boobu mooy sa baay dikin garam nala baay boobu mooy sa baay dikin garam nala baay boobu mooy sa baay saam jakul mooy sa baay loxo yi maam ñàkkul saar sama waay

mari taal ñu dem fa indi ñu ndaw dafa am mari taal ñu dem fa indi ndaw dafa am mari taal ñu dem fa indi ndaw te dem na coowa dem na coowa awum dafa ragal doone dem na coowa awum dafa ragal doone dem na coowa awum dafa ragal doone

mu bay buubu sant la lay la xar de wa tafsir moo tey sant la lay la xar de wa man ko tey mooy sa la lay la xar de wa gërëm na ko tafsir sant la lay la xar de wa gërëm na ko mu bay buubu sant la lay la xar de bay gërëm na loxo te ko loxo lay la xar de wa gërëm na loxo te ko loxo lay la xar de wa

أدنى نهدك الواي واجحنا كل من أمركم لا يدعو مرتدى أمرها ليلة خلد وأمامنا مامي باي مولى جوب ليلة خلد وأمامنا مامي باي مولى جوب ليلة خلد وأمامنا مامي باي مولى جوب ليلة بكني وخ jërëjëf El Hadj كل سيا عيسرنا كل سيا ماما أمل كل سيا عيسرنا كل سيا ماما أمل كل سيا عيسرنا كل سيا ماما أمل كل سيا عيسرنا كل سيا ماما أمل كل سيا عيسرنا كل سيا Amari Dai, ay buubu garam ndamal jërëjëf mama amari ba ay buubu garam ndamal jërëjëf mama amari ba ay buubu garam ndamal jërëjëf mama amari ba ay buubu garam ndamal jërëjëf mama amari ba ay buubu garam ndamal jërëjëf mama amari ba mu bay ko mu ñëw na lay la fal de wax ku mu bay ko mu ñëw na lay la fal de wax ku mu bay ko mu ñëw na lay la fal de wax ku mu bay ko mu sa bay lay la fal de wax ku mu bay ko mu sa bay lay la fal de wax

Take a love down, light up her new

jaajëf kii Pikine gërëm na ko alaaji góor na ko ci kanam ñu ñëwaat jërëjëf El Hadj Pape di nga ñëwaat ci kanam incha allah euh, monsieur Digo Mbengue micro baa ngi noonu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sant yàlla bu baax di julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa di am mbégte di taxaw fii ci ñetteelu édition bu journée culturelle Serigne Thiénaba Mame Ahmadou Ndack Seck mi nga xam ni moo sosoon Thiénaba en 1882 sunu kilifa yi feeñal histoire bi jàngal nan nu ko mu doon jàmbaar joo xam ni ci réew mi budul woon moom ak ñamu àndal ak seeni taxawaay diine man fee tumuranke mbaa nun nu doon leneen maam Ahmadou Ndaak yàlla nañu ko yàlla fayal mbokk yi kan moo taxawal journée culturelle yi ngir ndakaaru bànneexooti mbaa ndakaaru xéewlu ci xéewal yi nga xam ne ña ngay balle ca péncum leeru Thiénaba ma nga xam ni fii nu toog ak ba day mat quatre-vingt-deux kilomètres mbaa mu jege ko leer googay ball ba yegg si Pikine ko nu ko baaxee tey mooy sëriñ Mame Amary Seck bu maam sëriñ buubu Seck yal na yàlla guddal seeni fan te yàggal leen fii bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi yëkkati kon nuyoo ci turam moom sëriñ mam Amary Seck mi nga xam ni moo woote jataay bi nuyoo boobu nag mu ci jiital sëriñ Canaba bàyyi sëriñ Assane Seck xalif général des Tidianes Canaba mi nga xam ni incha allahu ci kanam tuuti dana nu dab ci jataay bi ronu baas bi ëndaaleel nu ay leer yal na yàlla def nu wërsëgoo ko te dugg beeg génn bi yépp yal na nekk xéewal ci àdduna bi yàlla mën nañu ko mën na ko yal nañu ko defal nuyo nuyoo boobu nag ñu njëkkee ko ci moom sang bi xalif général bu Thiénaba Baye Serigne Assane Seck ñu ngi ci toftal képp kuy njabootu maam Ahmadou Ndack Seck radiyallahu taala di ci toftal itam képp koo xam ni xalif général nga ci njabootu diine gu mu mën a doon ci Sénégal ndax taxawaayu Thiénaba ci réew mi kat jataayu tey wane na ko dafay daal di nekk central di séddale kon képp ku yëkkati kàddu kàddu googee day joy jëm ci bépp pays diine bu nekk fii ci Sénégal kon ña ko taxawee ñu ngi leen di nuyu ci turu ki jataay bi di sëriñ mam Amary Seck di nuyu képp koo xam ni yaa ngi taxawu diine ak noo ko taxawoo waaye di wàcc sunu jataay bu tedd bii nag di nuyu ki nga xam ni wolofa ne woon lu njiin njaaga te yaay njaag mooy ki nga xam ni sikarkat ba danay faral di wax ni yaa ñu wan diw kon mam buubu sekk yaa ñu wan mam ëmari ndaag sa doom turandoo maamam waaye nga boole ci nekk nit koo xam ni ci sag lewet ñépp nga jur ñépp nga jaboote kon bàyyi sëriñ buubu sekk setu mam ahmadu ndaag sekk nekk nii ci kaw présidium bi ñi ngi jiital nuyub jataay bi ci yow di ñaan yal na yàlla gën a guddal sa fan baay buubu yàlla nga fi yàgg lool ci sag lewet baay buubu yàlla na nga fi yàgg lool ci sag bëgg nit baay buubu yàlla nga fi yàgg lool ci sag bëgg njaboot euh, nuyo booboo tam ñu di ci toftal suñu sëriñ di sa tuma maxbalu nag moom itam nga xam ni ñoom ñoo féete ni ci kaw projet jom bi Euh, ki may tudd ci ñoom rek mu yóbbaaleel ma leen bu dee sama bët naxuma muy Serigne Abdou Rahim Seck di sëtu mam Ahmadou Ndaak mi ngi ci kaw nekk fi ak ay rakkam nekk fekki jarbaatam ak i doomam kon maa ngi jaar ci jëmmam di nuyu képp kuy deretu maam Ahmadou Ndaak te nekk ci biir jataay bi daanu ci dellu si diggante ñaari kàddu ndax loolu lañu sëriñ bi sant mooy ku fi teew ak daraja boo ci am rek incha allahu ñu jox la sa cër ba mu mat di nuyu gannaaw loolu nag ñi nga xam ni ñoo fi teew ñëpp di jukkiwaat ci ñoom njabootu ñi ñu tudde suñ bis bu tedd bi di njabootu maam Daawur Jóob jarbaatu maam Ahmadou Ndak radiallahu taala anhu eh, ki nga xam ni moom moo jiite délégation bi di Serigne Maajoojo Jóob ñëw ñëwal kilifa ya ñëwal njaboot gi ñëwal boppam ñëwal ñi mu àndal ñëpp daanu dellu si ndax Euh, seen délégation protocole bi jox nañu ko ñu ciy sant di ci gërëm euh, bay Serigne Diop di nuyu njabootu maam abu Sarr sunu wayjur wu tedd woowu nga xam ni euh, ak lewetam kenn nattamleetu ko macha allah njabootam yëpp teew nañu jël nag seen nuyoo di ko teg ci loxo sunu yaay soxna pend loo mu séddaleel nu ko ñëpp ñu mu war a dem ba ca nag sëti maam Maguette Gueye ba ca njabootu maam Bakar Sarr ak maam ñàkkuur ak nu mu gën a yaatoo noona sunu xol yaatale na ko noonu di nuyu tam njaboot gi nga xam ni ñoom ñoo gunge euh, soxna si nekk ci daara ji di fi wettali sëriñ bi di ko uufle ndongo yi di soxna maam Kumba ñu ngi lay nuyu yaag ñi nga àndal ñëpp macha allah waaye di nuyu tam délégation yi nga xam ni ñoo teewal ñi nga xam ni ci kanam tuuti kenn ku nekk daanu fësal sa maam Euh, jox ko li nga xam ne moom moo di hommage am ndax Serigne Amary sekk noonu la ko tërale ren mooy am nañu fi juróom-ñaari njaboot yoo xam ni édition ren bi tànn nañu leen muy ñuy war a rendre hommage ñoom ñëpp incha allah daanu ci dellu si benn par benn ndax technique bi euh, waajal na ko euh, di nuyoo tam waa àndu démb ndax defe naa ni olofa ni woon lu yàgg dëgg la waaye yàlla na fekk mu tegu ci dëgg waa àndu démb di ñi nga xam ni ñook sëriñ maam am mari Seck ca daara ja ba léegi ñu ànd lépp di rafet seen nuyoo maa ngi leen koy jox euh, kenn ku nekk la nga ci am rek ñu ngi la koy sédd di daanele sunu kàddu ci wàllu nuyoo yi di nuyu coordonnateur journée yi di Serigne Ibrahima Sow ak équipe bi mu àndal ña nekk ca bopp ba ci organisation bi di sama nijaay euh, Serigne Souleymane Gueye ak ñiñ ko bokkal ñëpp mbokk yi daanu ci dellusi mu gën a yaatu incha allah ah, su ko defee fi ñu jëm waaw kay bal ñu ñu wax ni oto bi nga xam ni moo amee DK 12 74 AS dafa baare ku war a génn ñi ngi ñaan ku ko amee rek mu jàppaleñ ci loolu ah, di wax ni kon gannaaw li ñu fi jiitu lépp ci suba bi ñu xëyee jàng nañu ay kaamil yu bari ñaan ñaanal àdduna bi yàlla na ko yàlla nangu Euh, li ci topp itam mooy dalal nañu gan ñi macha allah te mooy yéen gani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen wuy si gu taaru gii liñ leen bëgg a teeroo nag mooy panel boo xam ni daanu jox kàddu gi professeur Souleymane Dia mu présenté ko présenté ñi koy war a def ak bi ñu war a waxtaanee di boo xam ni incha allahu dana sedd seen xol lool ndax dafa jë dëppoo ak fi jamono toll. bu nu yëgalee ci loolu nag am na ñu war a kàddu wax ci li nga xam ni. Euh, panélistes yi doon nañ ko wax ñu indi ci seen euh, contribution bu loolu yeggee ni ma ko junjee woon léegi ñu jëm ci ñi nga xam ni nag ñoom lañu ñu war a rendre hommage kenn ku nekk ñu wanewaat sa maam ci fàttali waaye jox la euh, kàddu barkeelu rek nga barkeelu xamalaat ñu kuy sa maam ba tax ñu tànn ko ci bis bi. mbokk yi bu nu yeggalee ci loolu dañuy daal di nag jox kàddu gi ñi ñu pare ne bis bi te mooy njabootu maam Daawur Jóob ñoom bu ñu ko yëkkatee ba yeggal incha allahu euh, su boobaa nag yaakaar naa danañu yóbbu ci ñu déglu ki nga xam ni moom moo di xalifa bi waaye xalifa bi kiy jiitu kàddoom mooy ki woote bis bi di sëriñ maam Amary Seck waaye xalifa bi ki koy ubbil kàddoom incha allah euh, mooy ki koy rëkkal junjung yi te moo di El Hadji Mor Gueye mbokk yi kon lii lañu bëgg a ànd ñi ngi ñaan nag kenn kuñ ci jox kàddu ku ne ñu jàppale ñu rek ci waxtu wi ndax euh, tardé nañu ba pare su ko defee ñuy ñu duggee ci mbégte ñu man koo génnewaat kenn du tayeel kenn du toqi ñi ngi jégaluwaat ñëpp di wàcc sunu kàddu di ko jox professeur Souleymane Dia mu présenté panel beeg panélistes yi ak thème bi ñuy war a def di profiter nag di gërëm la sécurité la police nationale seen teewaay am na solo ci nombre bu ama am solo parce que xam nañ ni xalif général mooy ñëw loolu seen wàll la